daal di nañu teg xeer bu njëkk bu jëm ci centre de formation bu ñu war a tabax fii ci diwaan bu Mbàkke lu nu mel nag ñu daal di ko amal niki tey jilee ci teewaayu autorité féetee fii ci gox bi ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum formation di Moustapha Sare di dellu ci waat ci lunu nu mel coopération bi dox ci diggante Sénégal ak réewum Allemagne moom ministère bi di fàttali diggante Sénégal ak Allemagne seen lëkkaloo gu yàgg depuis ci atum 1962 ba tey ñu daal di ko wëyal. diggante Sénégal ak Allemagne diggante la boo xam ne du tey yàgg na monsieur l'ambassadeur mi toog fàttali na ko léegi ndaxte 1962 ba léegi ñi ngi am coopération boo xam ne bu mucc ayib la te mi ngi tàmbalee ci hôpital bi nekk fii ci Diourbel di hôpital Heinrich Lübke bi nga xam ne sénégalais yu bari fajoo nañ ci mun nañu wax ne ay millions de sénégalais fajoo nañ ci Allemagne yemul foofu ndax domaine boo gis ci pàccu réew mi Allemagne dugal na ci loxoom rawatina formation professionnelle lii nga xam ni moom lañuy def tey jii nii te waa KFW te ñoom ñu koy wax KFV def ko jël lu tolloog fukki milliards ak ñaar lu ko néew tuuti rek jagleel ko formation professionnelle loolu ku la ko may ne la na tabax lu tollook juróom-ñetti centre de formation équipé leen former ay ndaw loolu ku ko ku la ko may xamal ni kooku sa xarit la waaye monsieur l'ambassadeur na xam ne xol bii ñu ko jox di cadeau xol la boo xam ne du mësa a yox yoxi ci diggante Allemagne ak Sénégal Monsieur l'ambassadeur, le cœur que nous venons de vous offrir est un cœur qui ne se brisera jamais puisque les deux peuples sont unis par l'histoire et par la coopération. lu nu men askanu Mbàkke yàggoon koo soxla lool ñu waaye ñu jafe woon lool ñu am bërëb bu ñu daal di amalee lu nu men moom maire bu Mbàkke Galaba di xam na ne ginnaaw bi mu ko daal di tabbee mu doon maire Mbàkke si la daal di tànn bërëb bi joxe ko ngir ñu man fee tabax centre bi ngir ndawi Mbàkke mën a am lii di wàllum formation. lii waa Mbàkke dañ ko xaar ay ati at depuis plus de dix projet bi taxaw na financement bi taxaw service compétent ministèr la formation yi jëf waaye li leen jafe woon mooy am terrain buñ ko def bi yàlla ñu baaxee ñu nekk meeru mbag ñu diis ñu ko ci saasee lañ mettre site bi à la disposition du projet pour ñu permettre ñu ñu mën am centre de formation bu baax bu méngoo jamono. mu teg ci di sàkku ci ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllum formation moom maire bu Mbacké di ko xamal ne lii de baax na lool wante doyul ndax nag askanu Mbacké. ñoom de soxla nañ yeneen i santar donte ka Mbàkke am nañ jafe-jafe ci bërëbu jàngukaay waaye seen ndaw ñi ñu ngi amal ay résultats yu baax jëm ci wàllum njàng. xale yi condition ñuy jàng depuis plus de dix ans condition yooyu baaxul mais malgré cela ñu ngi def ay performance def ay jéego yu mucc ayib ba nekk tey la fierté du département de Mbacké kon fi may tëjee mooy monsieur le ministre. Mbacké département bi wax naa ko sànq et ce n'est pas un hasard que j'ai eu à le préciser ñooy département Sénégal bi ëpp mbooloo ci réew ci ci Sénégal kon fii ñetti centre ba juróom doyu fi moo tax am na benn centre bu ñuy xaar je parle su le controle de vos services te nañu yaakaar incha allah ñu la koy ñaanal nga ñëwaat fii ba benn xeer benn xeer pour Mbacké am benn centre de formation professionnelle boo xamante ni day mën a intervenir ci wàllu jigéen yi. moom ministère bi di Moustapha Sarré nag di dellusiwaat ci bëgg-bëgg ak programme njiit réew mi président Bassirou joomaay Diakhar Faye ngir rek ndaw ñi nga xam ne danoo daal di contribuer si li nga xam ne moo di projet bu Pastef ñu daal di leen jox gëdd rawatina lu jëm ci wàllum formation ak wàllum emploi muy liggéey. ndaw ñi nag ca ñoom lay terminer dama leen di xamal ne son excellence. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak gouvernement bi nga xam ne le président le premier ministre Ousmane Sonko moo ko jiite dafa jël formation professionnelle jox ko gëdd bi mu war a am ci réew bi ndaxte kat projet bi nga xam ne moom ngeen plébiscité le 24 mars ak cinquante quatre virgule vingt huit pour cent dafa ci am axe bu am solo jëmale ko ci wàllu capital humain moo tax yéen ñii di ndaw yi Sénégal rawatina ndaw Mbàkke ngeen nekk ci département boo xam ne liggéey rek lañu xam ndax Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ñu ko jàngal jàpp naa ni. li ngeen jàng-jàng boo xam ne bu mucc ayib lay doon ba lii président de la république bëgg ci réew mi ngeen jëmmal ko Sénégal daal di teguwaat ci raay yi nga xam ne waru ko woon a génn jamais muy réew moo xam ne dañ koy joxoñ foo toll muy réew mu développé. jéem mënu mel nag ñu amal ko niki tey jile ci altina gi ci teewaayu autorité locale yi ak autorité religieuse yi wante ci teewaayu ñi nga xam ne nii ñoo fi toogal réewum almaañ muy ambassadeur bi ak ñi ñu àndal ci liggéey bi. projet boobi nag du yem fii rek wante war naa am ci yeneen i gox fu si mel ni Diourbel Mbàkke Ziguinchor Kolda ba ci Sédhiou ak yeneen yi bërëb liñ ci war a def ci wàllum xaalis nag toll na ci fukki milliards ak ñaar yu toftal as lëf muy projet boo xam ne nag lii di réewum Allemagne moo ko daal di financé ginnaaw ci lëkkaloom ak réewum Sénégal bi nga xam ne lu yàgg ba tey ñu ngi ko daal di door man cee feesal sax lu si mel ni hôpital Endres Leke bu jurubeel nga xam ne réewum Allemagne ñoo ko daal di woon tabax fii ci région bu jurubeel kee Mbacke Baye Saliou Dieng Keba Diallo Info 7 TV.